di ñaanal sunu kilifa gu mag gi ne ci sunu kanam sunu borom may ko gudd fan lool ak wér gi yaram te may ko tawfiq ba mu àggale yéene yi mu am ci diine ji am ko ci yoon wi ñu ànd ko ak moom xam nañu nag ci fan yii ñi ngi ci mujjug weeru ramadaan weeru bàkkeel wi ci bisam yu mujj yi muy fukki fan yu mujj yi ci bis yu mujj yi sax bis yu mujj yi nga xam ne ci la ñu wax ne ci la ñuy goreel nit ñi ci sawara etxun min an naar yàlla dogal na nu digal nu nu dàkk laylatul qadr gi nga xam ne mooy xayrun min alfi shahr ñu dàkk ko ci guddi yu mujj yi ba biig rek moo ci mujj ñu dàkk ko di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu taw feexal nu nu dajeek moom te mboolem jaamu yàlla yi ñu ci def yépp yàlla nangul na ko te làqal na ko fu yàqu eggul man na ko te attan na ko mbokk yi ñu xam ne mbir yi yépp nag ci mujj ga moo ci am solo mbir yi ñuy def yépp mujj ga moo ci am solo li gën ci li ñuy mujjale nag sunu weer wii wala sunu koor gii nag mooy li nu sunu borom tabaraka wa taala digal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leeral nu ko muy génne muurum koor génne muurum koor muurum koor moomu nga xam ne dañ koo jàppee muy farata wala muy sunna boo xam ne dañ koo waral ci bépp jullit bu góor ak bépp jullit bu jigéen mag la wala ndaw la woor na wala wóorut am na alal wala amut alal waaye képp koo xam ne daal fekk koor gi koor gi war nga ko wala mu fekk la fi koor gi fekk la fi te nga am loo xam ne ci bisub kori bi mën nga cee dundal sa bopp dundal ci sa njaboot muurum koor day daal di gàddu ci sa kaw moom asaka la joo xam ne sartuñ ci am alal sartuñ ci ay sart yi ñuy sart ci alal yi ci des waaye lañ ca sart rek mooy bisub kori gi rek am nga loo dundee yow am nga lu sa njaboot dundee lu ca topp rek war nga caa génne muurum koor ndax dafa war nit ñi la war waaye warul alal yi de ko desu ko xool ci alal li nit ki am ci alal waaye nit ki ci boppam la war moo tax mu war góor war jigéen war war mag war ndaw war sax gone yu ndaw yi nga xam ne sax dañaan dañoo juddu tey wala yooyu ñoo ñëpp dañ koy waral ci ñoom ñu war leen koo génneel nit ki nag di ko génneel boppam moom ci boppam moo koy génneel boppam wala mu wala tey da koy génneel képp koo xam ne ab dundam war na ko soxnaam doomam ay waajuram ak képp koo xam ne warlul na ko ab dund donte ne waru ko it waaye warlul na ko ko te mënu koo génneel boppam ba ci jullit boo xam ne sax jotewoo moom dara waaye gis nga ne mënu koo génne nga génneel ko ko te yàlla tax su boobaa moom it yéene ji rek moom la yàlla dafay innamal amalu yaat moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag <clears throat> leeral nañu ci benn hadis bu wér boo xam ne lan moo tax yàlla wala lan moo tax moom yonente bi mu digal nu génne muurum koor farada rasulullahi zakat al fitr tuxratan lisaaimi min allaxwi wa rafath wa tawmatan lil masaakin burum koor nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla farat wala farataal na farata bi farataal na ci yéen muurum koor ngir mu laabal seen koor ci eh, waxi caaxaan ak jëfi caaxaan ji nga xam ne àndoon na ci te ci nekk mu laabal leen ci setal ko wecc buy koor gu mat waaye it muy ndimbal di leel ñi nga xam ne way ñàkk lañu ca seen loxo jotut seen gannaaw kon day laabal koor gi lépp loo xam ne jaxasoo woon na ci te waru cee bokk muy luñ dolli wala luñ wàññi te loolu yombut ku woor koor goo xam ne dara jaxasoowu ca lu ci war te bokk yombul saa boo xamee ne nit ki ne murum nag loolee newoon ci biir koor ga te waru caa nekk wala mu war caa nekk te nekku ca loolu lépp koor gi da koy defar ni nga xamee ne ni la sujoodu sahwi su sujootu jamaj ni muy defaree julli noonu la muurum koor di defaree koor nga xam ne bu ca dara manqué ca koor ga ca julli ga da ngaa yokk wala da ngaa wàññi ñu ne la sujootal ñaari sujoot boo sëlmalee koor it boo wooree ba noppi ñu ne la génneel muurum asaka ngir mu jàng ngir mu defar ngir mu réparé lépp loo xam ne nekkoon na ci biir koor gi ci luy nuru lu ca wërta nekk kon day defar koor gi day sellal koor gi day eh, taaral koor gi waaye beneen bi it mooy nag li dox sa digganteeg doomu aadama yi muy am na ñu yàlla mayut ñu mën a defar seen bopp ci bis bi bis bi day bis boo xam ne bis bu tedd la di bisu mbég di taar sunu borom tabaraka wa taala bëgg nag ñëpp taar bi ñu seddoo ko kenn du ci ëppale sa moroom ki am ak ki ñàkk ñëpp mu ne yéen ñi am nag ba am lu ngeen xéewloo ci bis bi ba mu des fab leen li ngeen des la léegi jox ko ñi nga xam ne ñoom amuñu lu ñu xéewloo ci bis bi ñu xéewloo ko ci bis bi ngir bis bi nekk seen bisu mbég bis bi nekk seen bisub bisub taar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat ko ci beneen addis gën ko ci leeral ne agnuhum anis suali fi hada ñi nga xam ne seen loxo jotut seen gannaaw na fexe ba bisu kori bi duñ ci wër di laaj kenn duñ ci wër di laaj kenn wër ci bisu kori bi bis nekk na bisub lislaam bu taaru nekk na bisub lislaam bu jekk boo xam ne rafetu ci ñuy gis ab julit muy wër ci mbedd mi di laaj te amut lu lu suturloo kenn ku ne war naa am lu suturloo ci biir këram am lu ko doy ak njabootam loo xam ne du wër di laaj kenn du wër di lajal kenn kon loolu moo tax muurum koor sunu borom tabaraka wa taala yoonal wala lislaam yoonal ko ci nun yonent bi sallallahu alayhi wasallam leeral na ko li tax mu jóg mooy lu jëm ci seen jaamu yàlla gii di koor koor ni mu ak ni mu yàggee soo ko defee ba noppi nag lépp luñ ne la moo koy matal la ca sikk moo koy dolli moo koy defar loolu war nga caa góorgóorlu bu baax a baax te loolu mooy muurum koor waaye sa moromi jullit yi nga xam ne it li nga am amuñu ko te yàlla leen ko teg li nga am it yàlla la ko jox waaye du sa ngóora yow it nga yëkkati ca loolee nag delloo leen ko ngir ñu ñu taaroo bis bi ngir ñu bégee bis bi ci ñoom jullit yëpp kon loolu mooy aju ci muurum koor ah, waxtu wi ñu ko war a génn nag mooy bu jant bi sooyee rek bu ñu weer wi feeñ na wala fanweer yi fan yi mat na bu jant ba sooyee rek ci bis bu mujj woowee moom muurum koor war na maanaam booba la tàmbulee war la ko jiitu warul la mën nga koo génne waaye warul la waaye bi mu lay war nag mooy bi nga xamee ne jant bi sona ci bis bi mujj ci bisu euh, euh, euh, ramadaan yi xam-xam yi nag yàgg nañoo wax ne mën nañ koo jiital lu jiitu kori gi ñaari fan lu jiitu bisub kori gi ñaari fan wala ñett mën nañ koo jiital muurum koor am nañ sax ñu wax lu ëpp loolu waaye lu ba ñuy wax loolu sax jamono jii lañ ko gën a soxlaa ndax ñi ngi koy jox illa bi mooy ñu bañ a laaj ci bisub kori bi te ku xam na ne bisub kori bi laaj na mbir yu bari yoo xam ne lay tee nit ki di ko laaj day fekk mu teel koo jekku ba def ci la bëgg bisub kori bi bu ñëwee du ca du ca du ca euh, soxla lu bari lu baree bare bari kon loolu ñu bari war nañ cee bàyyi xel bañ a néeg rek ba bis bi ñëw ci bis bi la la war moom boo ko defoon it doo ca am bakkaar ci bis bi la la war waaye ngir xool intérêt euh, woy ñàkk yi ak jàppale leen jàppandal leen mbir yi ñoom it nga teel leen koo jox bañ teel caa mën a jariñu teel caa mën a jariñ seen njaboot ba balay bis bi ñëw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 وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الصلاة njabootam war koo génne génneel ko njabootam googu jëkk ñuy julli jëkk ñuy julli lañ koy génne képp koo xam ne sàggan nga ba génnewoo ko gannaaw buñ jullee jëkk bu jëkk ñuy julli buñ jullee ba noppi boo ko génnee yonent bi sallallahu nee na sarax la rek ci sarax yi ab sarax la boo xam ne da nga ca amub waaye nag amoo muurum muurum koor ndax gannaaw julli gi nga lu lan nan lañ ciy génne nag mooy ni ko yonent bi sallallahu waxee saa lay doon maanaam ñeenti mudd sa ñaari loxo yi nga dékk ko ci ceeb wala ci dugub dékk ko bam fees del nga sotti ba muy ñeenti yoon loolu mooy benn bopp benn bopp bu nekk boo amee juróomi bopp nga def ko juróomi yoon bu ko ëppee nga def lu ko ëpp ca lañ koy def nag mooy la ëpp ca la ñuy dundee la ëpp ca lañuy dundee suñ réew mi nag am na ci ñoo xam ne yëf yi dañ ko def ak taabut te mburum koor dafa am illa illa la am mooy xaalibu xuuti ahlil balad li ëpp ci li nit ñiy dundee kon loola duñ ko aj ci lii wala laaw dañuy seer rek la ëpp ci lañuy dundee te réew mi ku xool gis na li ëpp ci li ñuy dundee li ci ëpp mooy ceeb la moo ëpp ci li nga xam ne moom la ñuy dundee kon day mel ni ci ceeb lañ ko war a génne ci ceeb lañ ko war a génne am na sax ñoo xam ne dem nañ ba ne léegi ci jamono bu njëkk bañ koy génne ci dugub ci jamono yonent bi ak yooyu mu tuddoon nit ki dañ ko ko daan jox ci bis bi mu dem defar ko ci bis bi daal ci jëfandiku ci bis bi waaye lépp ci bis bi lay doon amul leneen lu mu soxla day dem rek daal di dëbbu daal di wal nàkk def nàkkam booleeg meewam daal di xewlu na ñëpp yi xewlo ndax loolu boo doon nu xéewal gi nga xam ne ñëpp moom la ñuy xéewloo waaye ku ne xam ne ne jamono ñu nekk ñi borom xam-xam yi ne sax mënees na koo génne njëg ak njëg mënees na ko def ak njëg seet euh, euh, ni mu toll ci ay kilo te buñ ko xoolee ci kilo ñeenti euh, mudd boobu buñ ko xoolee ci kilo war naa man ñaari kilo ak genn wàll libar wala ñaari kilo ak genn wàll daal gën jaa bari ëpp gi amul solo waaye yées gi mu am solo kon ñii ne ñaari kilo ak ak genn wa liibar ñii ñaari kilo ak liibar mooy la gën a bari ñaari kilo ak liibar ku ko génne génne nga benn bopp la nga am ci ay bopp nag nga génne lu toll noonu soo seetee ñaari kilo liibar yooyu itam lan lay jar seet nañ ko ci borom xam-xam yi nekk ci dëkk bi seet nañ ko ba gis ne mu ngi tolloog 900 francs 900 francs juróom-ñett euh, téeméer ak juróom-ñett fukk wala boo ko wàññee ba def euh, ñaari kilo ak Euh, ñaari kilo ak ak ak ak kii ak liibar genn wàll liibar muy 800 francs 800 francs 900 francs diggante boobu am na ñoo xam ne nag dañ koy arrondi sax daal rek def nag 1000 francs rek boobu bu nekk rek 1000 francs loolu gën ca faqir ba te wàññiwu la dara day yokk sa yool rek waaye du la wàññi bu ne 1000 francs wala gën jaa néew 900 wala 800 ku ko génne mel na ni génneel nga ko sa sa sa sa génne nga sa sa warugar te loolu it moo gën a amal njariñ ñi ñu koy jox waaye xam nga nekk ba bisub kori nga génn ab ceeb wala nga génn ay ab dugub dugub di ko jox ab faqiir la yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam ne na ngeen leen na ngeen dox seen digganteegu yalwaan ci bis bi loolu moom du dox seen digganteegu yalwaan ci bis bi ndax bu ñu ko doon jaayee duñ gis kuñ ko jaay ko doon jaay duñ gis kuñ ko jaay waaw te buñ ko doon jaay kenn it njëgg dana wàññi ko ba nga xam ne danañ ca loru te mënuñ ko lekk moom képp kon loolu wane na ne ñi ne mën nañ koo joxe ci ak njëg am nañ fuñ ko wér fu wér wér foo xam ne eh, njariñal eh, ki ñàkk tey léeg-léeg mu doon njariñal kiy joxe ndax léeg am foo xam ne kafa nekk dugub dana ko jafe ceeb dana ko jafe ba am xaalis moo ko gën a yomb ci am am yooyu kon ñoom ñan ñëpp kenn ku ci nekk sa njëriñ mën na caa mën na caa nekk ñi koy jox nag mooy ñi ñàkk bokkul ak asaka ji nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala dafa tudd juróom-ñett ci biir alxuraan ne ñooñu lañ war a jox asakay alal waaye asakay muurum koor bi moom ñi ñàkk rek lañ ko yemale ci ñoom al fuqaraa wal masaakin tuxmatan lil masaakin agnuhum ani sual kon ci ñoom lañ lañ ko yemale lu dul rek lor ju rëy lool ca ña ca des ñu gis ne ñoom kat ñoo ko gën a aajowoo ngir lor wala ngir ah, maslaxa boo xam ne moo tax ñu génne ko ci fuqaraaw yi waaye bu dul loolu rek bii murum koor moom dañ ko war a yemale ci ñi nga xam ne ñoo ñàkk te yemale ko ci seen bis waaw ñi nga xam ne ñoom lañ koy joxe da ci am ñoo xam ne dañuy wutaale beneen bis te lislaam moom li mu bëgg mooy bis bi rek bis bi rek boo ci amee lu mat nga daal di doy loo te la ëpp nag sax yow da ngaa war a joxe muurum Euh, ñi nga xam ne ñoo yaa yaa leen tane loolu kon mooy muurum koor ñu war cee góorgóorlu bu baax te sàmmonteeg moom nag te génn ci aada génn ci lépp loo xam ne aada la muurum koor bu su ko euh, joxe muurum bu ñëwee da gis ni ñi sonn lool ci ay nattukaay ak ci ay nangam nangam ak ndax lii ëpp naag ndax lii yées naag yooyu yëpp ay aada la rek waaye muurum koor moom simple na lool ñeenti barca boo gisut foo peesee ñaari kilo liibar nga daal di natt sa ñaari loxo ba mu fees dell ba fees du fees lool du du du yées nga sotti def ko ba muy ñeenti yoon mooy benn muurum koor nga defal ko sa bopp ak ñi nga xam ne ñoom la ñoom la ñoom ñoom la war ñëpp ah, beneen bi ci des nga xam ne war dañ ko itteewoo ci bis yi mooy bu demee ba ca mujj gën ak li ñuy wax julli korite julli korite lu am solo la loo xam ne am na ñu koy sàggane lool na ñoo xam ne dañ ko sàggane lool ba buñ xëyee di ko def rek ñu ngay nelaw bañ nelaw julli ji ba ñëw ñu door a yeewu ko def te fekk muy sunna su feddaliku soo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko defoon di digle ñu di ko def daf ko defoon musu ko ñàkk def te daa daan digle it ñu ko def sunna su feddaliku mooy loo xam ne yonent bi da defoon di ko digle sunna su feddaliku nag mooy boo xam ne doon na ko def waaye daaw digle ñu di ko def wala daaw ko digle saa bu ne bii nag da ko daan def saa bu ne di ko digle saa bu ne di ko def sax ba di ko def loo jigéen ñi nga xam ne sax julli warul leen wala gone yi nga xam ne julli warul leen waaye def na nañ génn ñëpp ñëpp nañ génn dem ci jullikaay ba ngir taaral lislaam ngir wane eh, darajey darajey lislaam kon bokk na ci eh, mandargay lislaam yi nga xam ne eh, fu ab ay jullit nekk rek war nañ koo taaral te kenn ku ne da ngaa war a defe ne yow yaa ko war a taaral ndax boo ko def boo tëddee nelaw sama rom tëdd nelaw rek bu ñëpp defoon ne yow shaaira boobu day daal dekk bu dee boo xam ne kenn du ko kenn du ko dundal te donc mooman yow azim shaaira allahi fa innaha min taqwal qulub mu am ay sunna yu bari nag yoo xam ne yu koy rafetal la yu koy ndax sunna bu ñu ko waxee rek ci jaamu yàlla yu mel nii mooy ay teggin teggin yi mu war a àndal waaw teggin te teggin gis nañ amee solo ci lislaam waaye rawatina ci yoonu murit yépp jaamu yàlla goo xam ne àndut ay teggin jaamu yàlla googu jaamu yàlla gu ñàkk yaakar lay doon gu néew ab yoon lay doon waaye sunna yi korite moom wala julli kori sunna yi bokk na ci bisub kori nga sangu sangu farata boo ko mënee nga sangu farata bala ngaa julli ci laal lu lu lu am xet lu neex lu mel ni parfum wala nga euh, laal lu neex daal ak sol yére yu baax yére yu rafet wala yére yu bees boo ko amee yére yoo xam ne daal dana wuute ak yére ya nga daan sol waaw toilette ba jëkk ba ca dëkk mooy na lekk bala ngaa dem bala ngaa julli ji rek da nga dara moo xam da ngaa ndékki moo xam da ngaa lekk tàndarma moo xam lu mën a doon waaye mos nga dara jëkk ngay dem maanaam mel nga de wóoratul léegi ndax dañoo bëgg bis bi nga wone ci ne koor gi jeex na yow wóoroo tey nga lekk dara boo yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana wala juróom-ñaari tàndarma balaa julli ji eh, jëfandikoo ko bokk na ci booy génn di julli ji boo génnee sa kër rek nga tàmbalee wax allahu akbar di kàbbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar wala nga wax allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila boo mën a yem ci allahu akbar allahu rek tam baax na ndax sunu borom tabaraka wa taala moo tukabbiru llaha ala ma hadakum li yàlla jubal gi mu na ngeen ko ci kàbbar màggal ko ci sant ko ci ci defal gi mu leen defal xéewal googu be bokk na ci sunna yi mooy booy dem jaar ci aw yoon booy dem liñ sopp mooy nga dox bu fekkee barab ba soriwut bu fekkee soriwut mënees na ko dox soriwut loolu du la sonal nga dox ko boo ko doxee yoon wu ngay aw ba ngay dem nga aw ci weneen yoon ba ngay ñëw ngir yoon yëpp yoon yëpp da lay seere yoon wi nga awoon bi ngay dem da lay seere yoon wi nga awoon bi ngay ñëw da lay seere tey it ñu wane ci nag taarub lislaam ñi nga xam ne julli jiwuñ woon booba ci bu njëkk xam ne ay yéefar lañu woon ay jullit na ci seen biir ñu bëgg bu ñuy jullit ji won leen ne leen nii la lislaam toll mbooloo mi jaar ci aw yoon dem ñu toog ñu nekk ñu toog ñu yor kër yooyee gis leen bu ñu jaar ci weneen yoon ñeneen ñeneen ci geneen kër gis leen ñu xam ne lislaam am na kattan am na doole am na eh, eh, ab taar bu rëy rëy waaw eh, beneen bi ci des mooy ci sunna yi mooy nga yaatal sa njaboot nag xéewal sa njaboot yaatal leen lool ci lekk yaatal leen ci naan yaatal leen ba ci pomul pomu dagan ci bis boobu dañ ko dañ ko dañ ko sopp ba mu dagan waaw lépp loo xam ne rek lu dagan la ci bis bi ci lekk ak naan ak yu demee noonu dañ ko ci daganal na li kulli qawmin aid wa inna al yawma aiduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la waxoon nee na bis bii bis nit ñu am nañ feet ñun ñu ne am nañ feet te feet bisu bëgg la bis bii nag ñun mooy suñu feet tabaski wala wala wala kori mooy suñu feet mu ne xeet wu ne am nañ am nañ feet sëñ Tuubaa radiyallaahu taala wax na ko ci masalikul ci ci xutba bi mu xutba ci yowmul ayit fa inna haada yow mu yowmu aklin wa shurbin wa itq bi fadli man jaada bi fatqi rat bis bii bisub lekk la bisub naan la bisub goreel la bisub mbëg la kenn ku ci nekk ku nekk war nga cee bégal sa bopp bégal ci sa njaboot te wattandi ko ci lépp loo xam ne lu ñu la lépp loo xam ne lu ñu sib la nga ko ci ci am po wala ci ay lekk wala ci ay naan wala ci ay yàq yooyu ay benn benn la yoo xam ne ci ay sunna ak yu ñooñu kenn ku nekk war nañ cee góorgóorlu ba nga xam ne sunuy jaamu yàlla dañ koy rafetal ci ay aadaab yi nga xam ne moo war a ànd ak moom ba la ca nekk ci ab yool ñu mën koo jot lépp yal na yàlla dimbale te nangul nu suñuy koor nangul nu suñuy naafila nangul nu nu jot laylatul xadar bi nga xam ne moom lañ doon dàkk yàlla tawféexal nu ba nu dàkk ko te bàyyi fi Cheikh Mamadou Mourtala ba mu yàgg fi lool ba àggale ay yéenam yépp ci diini ji àggale ko ci yoon wi ñu ànd ko ak moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu